macha euh, allah. bilaay walaay mam li maamu mooy xayru xalqi laay ma nga fa jàmmal laay kan lanu yaakaar rasulu laay Rasulullah moo di maadiyu njindeer ba waroo kenn kee du ñaar billahi moom moo doy Limaamu Laay ñi pese sunu jëf ya cey keroog siraat di fuur jaana may yëngoo ku sey balance gis nga daal di rek ñu ñaan ñu janlook Limaamu Laay kii wérdam wi daa foor Limaamu Laay jàngal ma fatiha téeméeri yoon am istighfar téeméeri yoon ma ne salaatu fatiha téeméeri yoon lay lay la la téeméeri yoon nga sa wir de te ñaanal yonen nga ñaanal njabootuk limaamu laay li lee di wirduk limaamu laay te moo di passeportu ahlu laay te moom la nii jël jëkim siraat ba jëm sa béyuk limaamu laay

am solo sax yi ma si dinaa di wax walaay waxtaan bi xam nga loolu waaw waaw jërëjëf jërëjëf merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs de Dakar Buzz maa ngi nii ak euh, Passane euh, le grand journaliste doon suñu confrère euh, ñu dégg ko kàddu yi mu yëkkati sànq waaye dañu bëgg a ñëwaat ci discours bi nga xamante ni moom moom la moom la ñu fi yëkkati tey mu mel ni li ñuy woote lépp mooy stabilité jàmm réew mi yow naka nga gisee discours yi nga xamante ni yëkkati nañ ko fi kilifa bi maa ngi laa je pense que si suñu dégg-dégg jàmm Sénégal jar na lu ne et je pense aussi kilifa yëpp si la noo dox waaye nag jàmm si kaw dëgg xam nga tey bu ma la nee kaay ñu dëkk ci kër gi du la may jàmm te sama wax kàddu yëpp ma naan jàmm bu yàggee nga ne ma munaafiqun la donc tey fi Sénégal toll ci mbooloo mi kilifa yi wax nañu kilifa yi nag dañuy liyaar mhm. dañuy liyaar dañuy léeg-léeg nag li naan wax bu egg dafa ko moom mais boo dégloo seen kàddu ñoom xam nañ fi dëgg féete léeg nag nu am nu nu taxawee noo xam ni ñoom dañuy waxtaan ci suuf ñeneen ñi di waxtaan si kaw ñeneen ñi di wax sànni ñoom nag bu ñu waxee ba pare ku si nekk da jël kàddu dem waaye lenn am na am na dëgg boo xam ni faw nu kaa wax sanu maam Abdou Aziz da baax da ka daan wax mooy bañ a waxee si kaw déggunu bu ñu waxee ci suuf déggunu nu wax ko ci kaw dafa am nguur bu fi nekk am nu moo taxawee taxawaay bi dem ba jëmmi jamono war a egg ci àpp ba nguur gi bugg ko ñaawal loolu rek mooy jafe-jafe Sénégal fu nekk nii si on parle de stabilité c'est parce que am na ñaan ñu jote ñaar ñooñu nag am na ci kenn ku tooñ ki tooñ dañ ko naan sëñ bi da ngaa tooñ baal wa ilaa ñu ne ko ah fi nga jëm baaxul araftu ko et je pense j'ose imaginer que kilifa yi effectivement ñu ngi kaa waxtaane mais li am solo mu di mbooloo mi mbooloo kenn du ko tiim nit di ko dóor nga naan ko nga naan mbooloo mi muñ leen da nga naan kii dóoree arrêté ne mbooloo mi may leen ko mu liggéey looloo gën a yanu maana nañ jàpp rek ni Sénégal réew baatin la bàyyi lay alayhi rek alayhi salaatu wasalaam pour noonu am na lu tax sanu maam Xaadim sanu maam Seydi Hadj Malick Amari Ndaak Amari Njëgën li tax nu lay cité c'est important sanu maam Cheikh Omar Foutiyou sanu maam Boukounta maam Baye Niass kilifa yi fi tëdd bare nanu gis na kilifa yooyu yàlla dogal na seen ñaan mu ngi ne topp mais tant que ñu ngi leen di wormaal tamit ñaan gi du fi jóge moo tax foog ñu def la distinguo la part des choses entre kilifa yooyu ak contexte bi ñoo dund ñu xam ne kilifa yooyu ay professeur lañu ay sëriñ lañu yoo xam ni yàlla moo yëkkati seen ba fenn fi ñu ne kiraama bu ñu nee kiraama du kiraama nañ jàpp ne sunu borom moo def li ko neex di am fu mu ko jaarale di wan won di nu wax ak di wax ak ñun donc tey si tënk daal Sénégal toll na fenn foo xam ni man damay jàpp ni régénérance la maanaam judduwaatu Sénégal mais ci réalité parce que tubaab daf fi ñëw imposer ñu acculturation yóbbu ñu ci xam-xamam moom te xam-xamu tubaab gënul suñu bos donc nañu dellu ci suñu bos ci sunu ay maam Cerno Souleymane Baal dellu ci sunu maam maam Xaadim maam Seydi Hadj Malick baale alayhi salaatu wasalaam saway ñu delloo ci lu nu moom ñun duñ sonn duñ am benn jafe-jafe euh, tout à l'heure ci say wax nga ni euh, nañu il faut que ñu jéem a noppal nit ñi ak politique te jéem a wax li nga xamante ni moo di économie euh, ñi nga xamante ni ñoo di la presse aussi tamit jéem a maanaam divertir ñi nga xamante ni ñoo di Sénégal parce que foofu la réew mi toll. waaw non parce que xam nga xam nga tey nii boo xoolee Sénégal nit ñi talatuñ sax fecc ak way dañ dem nañ ba musiciens yi mënatuñu concert mënatuñu mënatuñu def spectacle. Mm-hmm. Aïda Samb génn na album démb mais boo laajtee ñi ko yëg mhm. barewul pourtant presse en ligne bi mu nga fa mhm. mais sénégal yi talat est-ce que xam nga ni même laa presse en ligne mhm. bu ñu deful ndànk bu ñu toppee bës bës bës nit ñi dootuñu leen setaan xam nga fan la nit ñi toll ci ki leen di wax dans dix mois incha allahu rabbi luy xew Sénégal nan laa xewee fan la réew mi jëm nan lañ fay demee kan moo ñu faa yóbbu lu tax ñu war ñu faa yóbbu ak kan encore donc tey je pense que débat bi moo di ne nag kilifa yëpp wax na ñëpp artu ñu araftu bala noo atte yàlla bu nu atte nag yàlla na nu araftu artu nit ñi am limite ñun nag dañoo bokk ci ñi gëm ne réew mi réew baatin la sanu maam bàyyi laxa dane woon ci li ñu wax ci mag ñi Sénégal kaka nar a yàq kaa mënti doon moo xam ngay njiit wala keneen nga jog ne da nga yàq Sénégal nee na dana la doy mbubb ak mbubb tubéy bu la ab ñawal moo ne lu fi waay jëmbat sa bopp lay donc Sénégal daal ci jàmm rek la ñu war a sax ñu ngay gërëm sunu bàyyi Mouhamad Lamine Lay ak sunu xalif Mouhamad Maktar di wax ne kër këru diine yëpp ñu ngi leen dee ziar parce que ñun danoo gëm ne fépp la nu bokk du ñu nangu ñu féete la ñu fen fépp la nu bokk bu ñuy wax maam xalifa Ababacar si dañu naan l'intercesseur boo amee soxla daan na ko am maam wàcc ci waaw dox ca xabru ba wax ak moom comme ni ñuy duggee ci xabru baay lay alayhi salaatu wasalaam wax ak moom nun kaa defee bu ñu demee Touba sanu xabru maam euh, alaaji Fàllu Mouhamad Fadal ak feneen ak feneen ak feneen donc Sénégal nañu dox ci jàmm mais jàmm ci kaw dëgg waaw jaajëf jaajëf gaay voilà merci beaucoup amis et fidèles téléspectateurs de Dakar Buzz yaakaar naa lépp lu ñu fi euh, dina jur njariñ ndax ñoom jàmmi réew mi moo leen ñor waaye jàmmi aussi tamit Sénégal moo leen ñor euh, di ñaan ñi nga xamante ni ñoo di les hommes politiques nañu indi jàmm ci réew mi waaye kilifa diine yi tamit ñoom seen kàddu am na importance ndax bu dëkk bi ame jàmm ñoom ñoo fi def jàmm jooju di ñaan